dal nag ak jàmm seen seen bi di Thiowli Buzz kii di président Macky sàll gulet moo ngi soog a dem ci réew mii di France am lu xew ci Sénégal te demul ci télévision yi fa nekk daal di wax nu mbir demee waaye kii di président Macky sàll bi passé daa dem taseeg partisan bi di wax ay wax yu flou ci troisième candidature am bi lu waral kii di président Macky Sall mi nga xam ne ne bu amoon ab mbir bi nga xam ne ne Sénégal yëpp dañ ko ci doon xaar ngir mu daldi ci àddu da doon romb presse national bi dem ba ci presse international bi daldi yëkkati foofee ay kàddu léegi bu demee ba France du àgg ci média français yi loolee lu ko waral mooy que ne depuis bañ génnee ci manifestation yu amoon ci réew mi di Sénégal ci mois de juin dañoo xam dëggantaan kii di président Macky Sall moom mooy kan au niveau international. image kii di président Macky Sall au niveau national nag loolee moom mii di président Macky Sall mosu koo lijjanti ndax moom mooy dund ak sénégalais sénégalais yi xam nañ lim mel lim capable ak lim capable loolu benn sénégalais du ko nattable moom moo tax image am fii nii ci réew mi di Sénégal sàmmanteek moom loolee ñoru ko waaye nag au niveau international bi nga xam ne ne ñoo ñee dëkkuñu ak moom. daa yàgg di tek ngir ñu daal di koy respecté foofee ndax fu mu demoon ci plateau da doon jéem a gëmloo ñu fa nekk que ne réew mi di Sénégal ci démocratie la ko yore ci respect ay droits de l'homme ak yi ni mel. loolee la bëggoon a sàmmonteel ginnaaw ba mu yeewaatee coowal Adji Sarr Ousmane Sonko bi ba li ni mel julaat fi ay manifestation ba ay nit daal di fi ñàkk seen bakkan ci loolee daa sant kii di Aïssata Tall Sall ngir kookee bind benn livre. ñu daal di koy dippee livre blanc ci saa si ñu daal di convoqué yu nekk Sénégal yépp daal di leen di jébbal livre boobee bëgg leen naa gëm loo ko ne ci manifestation yi amoon ci réew mi di Sénégal la daa am lu ñu dippee ay forces occultes waaye loolee benn ambassadeur bind ci note daal di koy jébbal gouvernement bu ko fi yónnee waaye tamit benn ambassadeur amulu ci ay post ci réseaux sociaux yi si li ni mel la gouvernement bu Sénégal daal di xamee que ne manipulation boobee jàllul. ginnaaw loolee la kii di président Macky Sall daal di yebal kii di Antoine Félix Diome mu yebal police nationale ñooñee daal di def benn vidéoconférence daal di fa wone benn nit ne kookee ab nervi la daa bokkoon ci manifestant yi di tiire ci force de l'ordre yi waaye li ni mel ay télévision internationale yu mel ni que France 24 ñoo ko démentir wane que ne kookee moom ak policiers yi ñoom ñoo àndoon. si loolee la leen haut commissariat bu nekk ONU daal di bindee ab communiqué daal di leen di xamal que ne ñiñ gis ñuy tiire ci nit ñi ay policier lañ àndaloon te nañ ci ibbi enquête ci nu mu gën a gaawee wala lu ko may ñoom seen wàllu bopp dinañ andi ay enquêteurs yu indépendant ngir ñu amal enquête ci réew mi di Sénégal ngir ñu mën a situer responsable yi. ginnaaw ba image u Sénégal yaaxoo fépp ci àdduna bi nag te li ni mel kii di président Macky Sall daal di koy sabab moom ci wàllu boppam léegi. nangoo wutal dem ci média internationaux yi